aw ci nawet bi askanuk village bu Ndiayeen ak Ngolomit ci gént la ñu nekkoon ak bassin de rétention bi nga xam ne dafa feesoon ba xembet bay tuuru di dugg ci biir kër yi ak a yàqate tool yi ngir nag moytu lu nu mel ni ki ren gi instruction ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires Moussa Balla Fofana mu lëkkaloog waa AGETIP ay liggéey dara nañ ko ca bassin bu Kamboussou ngir soulager askanu Ndiayeen ak Ngolomit te Kambasour ku ne xam ne mooy zone bi gën a baax ndoxu Jurbel yëpp fii dañuy raviver mais heure bi bassin yi fees nañ amuñu fu ñu ko sotti ñu ne Kambasour dafa saturé daaw gis nañ mu génn débordé yàq fi ay kër yàq fi ay tool ñu ne kon ren pour prévenir ko li ñu gis l'instruction du préfet mooy ko ñu indi waa AGETIP ñu am collaboration bu ñuy liggéey ak ñoom yaatal bile bassin de rétention ngir yokk capacité ak itam aar dëkk bii di Njaayeen moo tax a jóg bile liggéey ñaari liggéey nag moo fi am bi jiitu mooy fexe ba yaatal kàmb yi ngir capacité am yokk ndox yi taa yi mën a wàññeeku ci dëkk ba beneen bi mooy ñu protéger village bi ñuy wax njaay yéen ñi nga xam ne xalif baa ngi nii taxaw ak waa dëkk bi euh, loolu mooy deuxième bi maanaam lépp lu ñu fi def ci yaatal ak liggéey dañuy fexe aussi ba bañ a yàqal kenn ñoom askanu njaay yéen kontaan la ñu daal di am ci liggéey bi nga xam ne door nañ ko sant yàlla bu baax a baax ci teew gi ngeen fi teew tey ba te ñu mën a jàppale mbënd mi métti na nag wax nañ ko ba tey yuux nañ ko ba tey ab géej boo boo xamul ndox bu géej fekk si la te der nga gis muy rey ay nit boo tëddee doo nelaw boo génnee doo nelaw fekk ñibbi si wow kon buñ ko defalee nag boo nawet bi génnatut bu ñu tëddee dinañ mën a xalaat ne daal am nañ jàmm lu mooy liggéey yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal ngir nag amal ak kaaraange ci bile bassin AGETIP. yuuxu nañ ko ba tey yuuxu nañ ko ba tay ab géej boo boo xamul ndox bu géej fekk si la. te der nga gis muy rey ay nit. boo tëddee doo nelaw boo génnee doo nelaw. fekk ñibbi si wow. kon buñ ko defalee nag boo affaire bi génn génnatul bu ñu tëddee dinañ mën a xalaat ne daal am nañ jàmm. lu mooy liggéey yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal ngir nag amal ak kaaraange ci bile bassin AGETIP ñoom envisagé nañu daal di tabax ak mur de protection ngir mu wattandiku ak géej yi nga xam ne moo fay am ci fàttali nag niki daaw fukki bakkan ak benn daal di nañu jot ci bassin bile.